Luk saar juróom. ay juutikat ak ay boroom daan jigéen ci yeesu ngir déglu ko. farisiyen ya ak xutbakat ya di ñurumtu naan. waa ji mu ngi nangoo nekk ak ay boroom bàkkaar ak alekandoog ñoom. noonu yéesu daldi leen wax léeb bi ne leen. kan soo amoon téeméeri xar te benn réer ci. nooy def. ndax doo bàyyi ca parlukaay ba juróom ñeent fukki xar ya ak juróom ñeent. toppi ma réer ba gis ko te boo ko gisee dinga ko gàddu ak bànneex yóbbu ko kër ga boo àggee ca kër ga dinga woo say xarit ak say dëkkandoo neleen leen kaay leen bànneexu ak man ndaxte gis naa sama xar ma réeroon maa ngi leen di wax lii ci noonule dina am mbég ci asamaan bu benn bàkkaarkat tuubee ay bàkkaaram te mbég moomu mooy ëpp mbég mi fay am ngir juróom ñeent ñu jub te soxla ñoo tuub seeni bàkkaar te it bu jigéen dencoon fukki libidoor benn réer ca nu muy def ndax du taal ab làmp bale kër ga seet fu nekk ba gis ko bu ko gisee dina woo ay xaritam ak ay dëkkandoom ne leen kaay leen bànneexu ak man ndaxte gis naa sama alal jëreeroon maa ngi leen di wax lii ci noonu le la malaaka yàlla yi di amee mbég ci benn bàkkaarkat bu tuubee ay bàkkaaram yeesu dellu ne leen dafa amoon góor gu am ñaari doom benn bis caat ma ne baay ba baay dama bëggoon nga jox ma li may war a féetewoo ci ndono li noonu baay ba daldi leen seddalee alalam ay fan yu néew ginnaaw gi caat ma fab yëfam yépp dem ca réew mu sori yàq fa alalam ci topp nafsoom bi mu sànkee alalam jépp xiif bu metti dal ca réew ma mu tàmbalee ñàkk mu dem nag di liggéeyal ku dëkk ca réew ma kooku yebal ko ca ay toolam ngir mu sàmm mbaam xuux ya mu xiif ba bëgg a lekk ca ñamu mbaam xuux ya ndaxte kenn mayu ko dara mujj xelam dellusi mu ne sama baay am na ay surga yu bari te dañuy lekk ba suur man nag maa ngi fii di bëgg a dee ak xiif damay jóg dem ca sama baay ne ko baay tooñ naa yàlla tooñ naa la yeeyatuma nekk sa doom boole ma ci say surga mu daldi jóg jëm kër baayam waaye bu muy sorandi kër ga baayam séen ko yërëm ko daldi daw laxasu ko fóon ko doom ja ne ko baay tooñ naa yàlla tooñ naa la yeeyatuma nekk sa doom waaye bàyyi ba na ay surgaam gaaw indi mbubb mi gën a rafet solal ko ko te ngeen roof ab jaaro ci loxoom te solal ko ay dàll indi leen sa luwu duufa te rey ko nu lekk te bànneexu ndaxte sama doom ji dafa deewoon te dundaat na dafa réeroon te feeñ na noonu ñu tàmbalee bànneexu fekk booba taaw baa nga woon ca tool ya bi mu ñëwee ba jub kër ga mu dégg ñuy tëgg di fecc mu daldi woo kenn ci surga ya nag laaj ko lu xew mu tontu ko sa rakk moo dellusi te sa baay rey na sa luwu duuf wa ndaxte ñibbisi na ci jàmm ci kaw loolu taaw ba daldi mer bañ dugg ca kër ga baayam daldi génn ngir ñaan ko mu dugg waaye taaw ba tontu baayam ne ko seetal ñaata at laa la liggéeyal mel ni jaam te musuma mooy sa ndigal waaye yow musuloo ma may sax teef ngir ma bànneexu man ak samay xarit waaye bi sa doom ji dikkee moom mi yàq sa alal ci ndoxaan reyal nga ko sa luwu duuf wi noonu baay bi tontu ko ne ko sama doom yaa ngi ak man bés bu nekk te li ma am lépp yaa ko moom waaye war na noo bànneexu te bég ndaxte sa rakk ji dafa dee woon te dundaat na dafa réeroon te feeñ na